dañ la mës a dégg sa benn interview nga nekk dañ la liggéeyoon nga tëdd lu yàgg. yow ak say doom ak say jabar ak. Mm, dama mhm. tëdd feebar. damaa tëdd feebar man. Mhm. waxuma dañ ma liggéey. sama kil boobu nga doon wax ak ak ak ak ak ki la tete bi. mi ma fekk ci lalu hôpital. ñu war ko tourner jour bi ma waxee. yàlla def ci sutura. bi may jóg pour préparer pour dem ak sama feebar di soox pour dem bu Ndour gis ma ne xam ne kii dafa feebar si leen ma ooyee ne ma yaayu Viviane dafa génn àdduna Bouba oo ma ne ma renvoyé nañ mm-hmm. ma feebar feebar bu metti nekk ci hôpital ba cinq minutes ñu sama jabar yeneen cinq minutes sama ñaari doom ma ni ginnaaw suñu borom feebar boobu sër Ousseynou Laye ak sëñ Fallou ñoo ma ci génne doomu yeneen soo ko fenelee waxuma la at weer une semaine boo ko toogee yàlla wat la ko. Serif Ousseynou Laye moo dox ba fekk ma ci biir hôpital bi dee nag géntuma ko mu dugg si sol lu weex tàll yuuxu ma ne ma man docteur de la jeunesse nga way ma di tëdd du feebar du luy am. barki Seydouna Mohamed mu ne ma fuy metti moo ko ko mu gestu xool sëñ fallu Mbacké ne ko demal dindi ko sëñ fallu mu ngi sol caaya ak jamput def bopp neen mu xawaleel nii mu ñëw dindi ne ci man barki salaatil

su ma yoree cent franc dañ ma koo may barki Seydunaa Muhammad yow nga jàpp ne loolu neen la. maraam bi ñëpp a ngi dina laaj ci kër maraam ba ba jéem ba ubbi sama buntu kër tàllal loxo pël fuute yi ma jàkkaar lool ñu gaare oto yëpp ma yóbbu ma hôpital bi ma sampalee pervision yi fa la Serif Ousseynou laay duggee ma nelaw ba yow sang bi dugg wax ak man barki Seydunaa Muhammad moo tax man ma gëm ni wala man dama daan def bu ma saan wane waa kër Seydina Limaamu ma zappe na ma yàlla baal. mais keroog ban ma wanee sama bopp laax gëm ni bàyyi laay mooy rasulillah te musique jarul ma ciy tiit ma jóge fa dugg ëtt dama wér rek dem xabru sëy Issa toog di jooy ma dugg ci benn ëtt fekk fa waajur naan limaamu mu ne ma bi nga duggee fii bis ni ki yow ndog-ndogi tee baat des na deñ na ci yow ko ku ko xam la loolu lépp kàmbareen barki salaatul fatiha bu ñuy bëgg ñoom Ibou Seyni am na waaju naan limaamu mu ne ma bés ni ki tey ndog ndogi téye baat jeex na ci yow ak i def-def ma jóge fa dem xabru Seydina Limaamu ca jàmm laay dugg kër Mambay laay mu ne ma naa la jox loo sango bu dee ay rab la ak lu la def dina dañ teg jox ma tegtal hmm. alhamdulilahi rabbil alamin way maam Limaamu mu wërale ma àdduna naa Seydina Limaamu faj ma sama album bu bees surtout Seyna Ali Maamu jox ma xaas ba ma ko defee kon loolu lew na de waaye léegi nag ñi am gel gel di leen financé ñu ciy dem def studio mooy cartonné si gëm sàkkantuma ak man li ma doom yu rasul yi laay jox. mais yow li la daloon yëpp jàpp nga ne yow neen la. du ah déggoo ma ne lii neenu neen <laughs> loolu du neen mais ndax ma nag diwoo ma ko teg mais du neen man oo naa sama bay tàggatoo barki yonent bi. dem na bay tagato li doon genn sama bir bi xawma lu mu doon hmm. la jël ñi may ponkal di dem rek sama bir bi jog di dem rek manan ñi topato <laughs> ke da no dajé mbacké mbàkke tok da no dajé deju deju Amin jaay ca charu azur mu xol manama ne li lan la ya ngi melni ni ni nga melni lan la do dindi seeram ni changé doon benen jibril di pataat di dem manan way man sama soxna ya. si jignama de ma de mangi ngi dem laaxira mais Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.